mbokki sene seneinfo point net seneinfo international ñu leen di dalal bu baax a baax ci seen session d'information du lundi 27 novembre 2023 ci actualité nationale et internationale dañ koy dooree rek ak euh, médecine bi nga xamante ne euh, avancé na Sénégal parce que def nañ c'est la première fois ñu def euh, une transplantation rénale ñi nga xamante ne ñoo nekk médecins yi ne nekk hôpital Aristide Le Dantec ak hôpital militaire de Ouakam ñoo ko amee démb def benn transplantation rénale sur un patient mu nekk loo xamante ne c'est une première nekk réussite ah pour pour la médecine au Sénégal donc euh, il faut ngeen comme ni ko xam comme ni ko ñëpp xamee euh, opération boobu ñu ngi koy doog a def ci Sénégal bu njëkk ba euh, bitim réew lañ ko doon defee. ñu ñëw rek ci politique li nga xamante ne mooy front pour l'inclusivité et la transparence des élections muy mouvement opposition bu nga xamante ne opposition bu bees bi moom opposition bi mu ngi ko taxawal mu nekk fit moom moom niki démb euh, dimanche euh, amal na benn conférence de presse pour ñëwaat si li nga xamante ne rek mooy mooy élection yi nga xamante ne moom la ñu waaj de dëgmal parce que ñi nga xamante ne moom ñoom ñooy membre fit nee nañ élection yi dafa fichier électoral bi dafa am ay irrégularité moom Cheikh Tidiane Dièye ak say ak ay nem ak jegeñaale nañ daal il faut ñuy xoolaat li nga xamante ne moom mooy fichier électoral bi parce que dafa am ay irrégularités yu ci nekk. donc ñu ñëw ci campagne ah, en 16 jours d' activisme 2023 16 jours d' activisme nag mu ngi nekk. Euh, loo xamante ne benn benn benn programme la nga xamante ne dañ koy dañ ko jagleel pour bépp li nga xamante ne mooy métital ñu def ñu koy teg xale yu jigéen yi ak jigéen yi pour ñu dàkkal ko donc campagne boobu ñu ngi koy commémorer en du cinq au 10 euh, décembre donc campagne boobu mu ngi euh, lutter contre les violences faites aux femmes nee nañ lépp loo xamante ne daal métit la métit la ñu koy teg xale yu jigéen ñi ak ak euh, euh, jigéen ñi ñu ngi ko bëgg a dakkal donc thème bi année bi mooy na ñëpp daje na ñëpp daje na nekk benn pour ñu mën a lutter contre si li nga xamante ne moom mooy métital yi nga xamante ne ñoo ngi koy teg xale yu jigéen ñi. donc ñu ñëw si actualité sportive ak. li nga xam ne moom équipe nationale féminine euh, ñu dégmal ko vingt 2024 donc ki nga xam ne mooy sélectionneur moom Moussa Camara moom convoqué na 23 joueuses bu toll si ñaar fukk ak ñetti joueuses donc euh, pour euh, les matchs contre l'Égypte pour jongante bi nga xam ne war nañ ko jongante ak waa Égypte donc au dernier tour des éliminatoires de la coupe du monde. li nga xam ne mooy éliminatoire coupe du monde donc liste boobu nag buñ ko bu ñu sukkandikoo si euh, xibaar yi liste boobu nag dafa mel ni euh, dafa dafa dafa niroo ak liste bi nga xamante ne sélectionneur bi euh, sélectionneur bi defoon na ko si ay mois si ay weer li nga ne passé na mu defoon ko donc nee nañ liste boobu daal ak liste bi nga xamante ne moom defaat na ko nii amul benn différence donc lii lañ leen di indiloon si. Euh, seen information seen session session d'information si lundi 27 euh, novembre 2023 ñu ngi di jaajëfal bu baax a baax seen di leen euh, ñaanal kenn leen jàmm